jërë ngeen jëf euh, yéen nit ñi euh, seetaan euh, ci Sénégal 7 point comme comme ni ngeen ko gisee noonu fi nga xamante rek mooy sa duwaanu donc zone de captage donc rek am li nga xam rek moom mooy incendie mu nekk donc ay lakk yi nga xam rek daanaka nemmeeku nañ ko fii comme ni ngeen ko gisee noonu. alors ngeen di gis li nga xamante ni euh, moom mooy moom mooy li nga xamante rek euh, alors moom mooy image yi euh, daanaka yéen a ngi yéen a ngi gis noonu li nga xamante ni rek moom mooy diwaan bi ni mu ni mu laqee alors fii nag daanaka suma jumul dëkkuwaay la donc ngeen gis li nga xamante ni moom mooy fii yëpp daanaka laq na alors bi ñu ñëwee nag. fekk nañ li nga xam te rek moom mooy euh, sapeur pompier daal di euh, daal di fay li nga xam te rek moom mooy ci alors euh, lakk-lakk yi waaye daak li ngeen mën a wax daal jamono ji moom mooy daanaka yéen a ngi yéen a ngi gis noonu li nga xam te moom moo di lakk-lakk yi fii nga xam te moom moo di alors si diwaanu zone de de captage comme ni ngeen ko ngeen koy gisee noonu xanaa du ñàkk ne na dinañ rek daal di tàllal suñu micro ñi nga xam rek ñoom ñoo fi dëkk su ko defee rek euh, ñu wax ñu euh, yëf yi euh, naka la tëddee fii nii si diwaanu zone de Kapta daanaka presque trois heures du matin jot na alors tey si guddi mercredi bi ngeen gis noonu li nga xamante ne rek moom mooy donc lakk-lakk yi donc gis ngeen daanaka si kaw noonu saxaar si daal di jolli Euh, donc ngeen gis na daanaka sapeur pompier euh, ñëw na euh, fay li nga xamante ni donc moom mooy li nga xamante rek moom moo di lakk-lakk yi donc en tout cas fii si diwaanu zone de captage moom xamuñu nag les raisons donc de cet incendie waaye nag ñu won leen image yi rek pour le moment su ko defee rek alors ñu daal di rek tàllal donc ñi nga xam rek ñoom ñoo ñoom ñoo dëkk fii nii ngeen gis euh, li nga xamante ne moom moo di image yi donc euh, fi mu ne nii nag euh, zeng yi nga xamante ni ngeen gis fii yëpp daanaka dafa mel ni sax ay dëkkuwaay la ndax xamuñ ndax marché la wala ay dëkkuwaay la daal waaye daal nañu leen wan en attendant li nga xamante ni moom mooy image yi ngeen di yi ngeen di gis noonu fi nga xam rek moom moo ci fii si diwaanu alors zone de de captage donc ñu ànd. Euh, avancer nii rek njël li nga xam rek moom mooy alors yii les images wala ay dëkkuwaay la daal waaye daal euh, nañu leen wan en attendant li nga xamante ni moom mooy image yi ngeen di euh, yi ngeen di gis noonu fi nga xam rek moom moo ci fii si diwaanu alors zone de de captage donc ñu ànd. Euh, avancer nii rek njël li nga xam rek moom mooy alors yii les images ngeen gis noonu euh, ni mu laqee en tout cas fii nii yëpp yëpp yëpp yëpp mën nañ wax ne euh, jot na laq bañ tasaare ko ak li nga xam rek moom mooy sapeur pompier donc ñu avancé dem si beneen côté bi. Euh, donc ñu ñu ñu avancé dellu su ko defee rek euh, alors ñu mën a jël ñi nga xamante ni également euh, ñoom ñooy li nga xamante ni rek ñoom ñooy askan wi voilà ñu ñu avancé dem jël ñi nga xam rek ñoom ñoo di askan wi su ko defee ñu wax ñu alors li nga xam rek moom moo di lakk-lakk yi nu mu nu mu nu mu demee alors jëm nañu li nga xam rek moom mooy. Fanti. d'accord ñu ñu continue waaw ñu avancé ci biir rek xool euh, ak sapeur ñi nga xam ne ñoom ñooy di sapeur pompier ñoom ñooy continuer di fay noonu li nga xam tey moom mooy euh, lakk-lakk yi léegi yow boo doon wax sa affaire ci li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy nguur gi état lan nga koy wax. ñu jàppale ko ñu ko ñu ko ñu ko ñu jàppale ko. ñu jàppale ko ñu jàppale ko. bagage grand état. waaw ngeen gis noonu li nga xamante ni rek euh, moom mooy euh, donc les sapeurs-pompiers ñoom ñooy euh, fay li nga xamante ni moom mooy alors lakk-lakk yi fi mu ne nii fii si diwaanu zone de captage alors ngeen ànd ak ñun si Sénégal 7 point com comme ni ngeen ko ni ngeen koy séenee noonu. dara Sénégal componente Sénégal képp ku am lu ñu lu ñu sunu euh, sapeur pompier ba tey ñu ngi ñoom ñooy fay noonu li nga xamante rek mooy euh, mooy lakk-lakk yi donc gis euh, ngeen ñi nga xam rek ñu fay li nga xam rek mooy tàkk-tàkk yi fii si zone de de captage jamono ji ngeen gis noonu li nga xamante rek moom mooy les images en direct. alors si Sénégal 7 euh, point com euh, tey jii si mercredi bi jamono ji nga xamante nii rek 3 euh, heures du matin moom moo jot ngeen koy ngeen di gis noonu li nga xamante rek moom moo di régiment en direct voilà sapeur pompier ñu ngi noonu di fay li nga xamante rek ñoom ñoo li desoon rek si lakk-lakk yi donc ñu wan leen li nga xamante rek alors mooy les images ngeen di ngeen di gis noonu voilà alors ñu avancé ñu avancé ñu avancé ci kanam comme ñu mën a laaj ñu avancé ci kanam comme ñu mën a laaj alors jàmbaar Dakom yaa ngi ñi ngay seetaan ci Sénégal set euh, euh, mën nañoo xam lan moo waral li nga xam te rek moom mooy lakk-lakk yi. waaw waaw diwaan bi diwaanu lan la ci la wala lan la ci kër la wala lan la. place la ngeen gis noonu sapeur mu ngi mu ngi fay euh, donc ñu wane li nga xam moom mooy image yi ba tey. Euh, yéen ñi ñuy seetaan alors euh, ngeen gis noonu daanaka fii li ñu xamal mooy place la donc place bi nag moo moo tàkk ngeen di ngeen gis noonu daanaka lii lii daal jéggi na dayo lool ndax euh, ak ni mu yaatoo nii yëpp mën nañu wax ne li tàkk bari na trop ba tey ñu xool rek ñu ngi sant rek alors moom mooy. ak ni mu yaatoo nii yëpp nañu wax ne li tàkk bari na trop ba tey ñu xool rek ñu ngi sant gis noonu ñuy daaj ji jàng yi euh, pour mën a vérifier yeneen côté yi tamit ndax desul ci ay safara waaye jàppale na rek sapeur moom réussir na ngir mën a fay li nga xam tek euh, mooy. Euh, mooy li fi doon tàkk alors euh, ngeen gis noonu ay bool ngeen di seen noonu donc euh, ngeen gis noonu kubéer yi bool yi wax ci ànd yi tamit donc lii yëpp dafay firndeel ne place bi nga xamante ni ay nit ñoo fi daanee seen doole euh, lii yëpp daanaka lakk na ba ñuul kuk bu ngeen xoolee sax gis ngeen photo bi dafa dafa lakk ba def ci nga xam rek moom mooy voilà ba ñuul kuk comme këriñ ngeen gis noonu ci images en tout cas c'est incroyable euh, fii zone de de captage euh, fii yëpp daanaka dañ ko lañ ko voilà dañ koo recouvrir woon ak ay jàng ngeen gis noonu jàng yi nga xamante ni Euh, gaa ñaa ngay woy ba léegi di di fay li nga xamante rek moom mooy li des ndax wóorul euh, bu fekkee yenn saay yi dafay des ay ay yenn ci ay euh, safara yoo xamante ni ci suuf lay nekk donc moo tax sapeur day ànd ak prudence ngir mën a fay bu baax ñu avancé ñu avancé ba si kanam tuuti xool jamono ji li nga xamante ne rek noonu la noonu lañ koy fayee noonu attention ñu def nànk rek parce que ngeen gis noonu li nga xamante mooy. Euh, la sapeur pompier di fay li nga xamante rek moom mooy euh, mooy donc euh, lakk-lakk yi nga xamante ni am na fi ndiki tey fii si diwaanu zone de captage donc fii nag ñu nekk daanaka soriwul dara ak li nga xamante ni mooy EMG e bi ci fàttali ni sax voilà amul benn problème voilà ñu ñu ñu ñu en ngir woon leen li nga xamante rek alors moom mooy. moom mooy les images yi nga xamante ni euh, fi mu ne nii sapeur pompier mooy fay noonu li nga xam rek moom mooy li des si euh, lakk-lakk yi euh, donc tey jii si li nga xam rek moom moo di si di donc 3 heures du matin jot na rek ba toftal ay simili. Euh, jamono ji nga xamante ni doy na waar lool euh, fi nga xamante ni moom mooy fii si diwaanu zone de captage mu nekk ab place bu yaatoo yaatu boo xamante ni euh, place bi nag daanaka xamaguñ lan moo indi lakk-lakk yi waaye jàppale na daal am na fi dégâts matériel boo xamante ni doy na waar lool fii si diwaanu donc zone de captage ndax bi ñu gisee ni nga xamante anam gi nga xamante tey noonu la ñuy daajee li nga xamante ne moom mooy place bi donc dafay firndeel rek ni il y a beaucoup